kaso Kaolack bi kaasu suukar cinq lañ fay jaayee kaasu suukar fukki simili fukk ak ñaar soixante franc la mais lañ koy jaayee téléphone lañ koy jaayee kaso Kaolack loolu mooy loolu mooy loolu mooy prison business bi ma doon wax loolu mooy prison business bi ma doon wax di jëfandikoo prisonniers yi. pour di ci jënd oto di ci tabax kër waaw c'est vrai que salaire yi moom baaxul waaw ñu ngi koy waxaat président ma Macky Sall na gëstuwaat agent pénitentiaire yi sonn nañu damm nañu taay nañu fay ñu leen lu doy waaw dañuy génn kaso war a ñibbi seen kër ñuy def autostop sinon waaw mooy loolu waaye nag ñenn ci ñoom parce que du ñëpp ñoo koy def lu ñuy def du dëgg du yoon directeuru kaso bu maanaam bu Kaolack li muy def nii du dëgg du yoon directeuru kaso bu bu camp pénal li muy def ci tàngaraay yeeg yooyu waaw du dëgg du yoon di jéem a koñe prisonniers yi du dëgg du yoon kaso Kaolack benn robinet ndox moo fa am néeg yi am na benn toilette mais amul ndox amul ndox ci biir néeg yi benn robinet moo fa am

zinc la zinc la da ngay nekk biir Kaolack nga am kër boo xam ne euh, dër la d'accord mu tàng xool leen bu fekkee zinc la xool leen bu fekkee zinc la ba pare ñu ne ci biir néeg yi amul lu ñu ne donc ñun loolu la ñu wax ne du dëgg du yoon. ñi fa nekk dañ leen nangu ci seeni mbokk yi nekk Dakar amuñu benn mbokk Kaolack kon ku leen di seeti nga war a fay xaw ma trois mille cinq cent bu dee sept place nga jël sept mille francs aller retour ah fay dix mille francs waaw fii ba Kaolack deux cent kilomètres pour seeti sa mbokk xanaa loolu mooy sa mbokk nañoo benn yoon par six mois wala benn yoon par trois mois. loolu pour lan soxor boobu pour lan ñu naan déet kaso bi moom prisonniers yi sonn nañu léegi prisonniers yuy naxarlu lu mel nii ah di naxarlu kaasu suukar cent vingt cinq ñu ne leen ràpp dugg leen ci cellule ndaxte waxoon naa leen ko fi biir kaso dafa am ay cellule waxuma dafa am cellule pour ñëpp mais boo defee loo xam ne nee nañ du dëgg yoon ñu dugal la ci cellule prison bi def la en cellule d'isolement ñu simmi la yenn saa ñu simmi la taatu nen sotti la ndox dóor la saaga la kaso Kaolack ñetti fan ñeenti fan juróomi fan a ngi am na ñoo xam ne dañ leen dugal cellule d'isolement ñu ngi feebar ndax lan di naxarlu liñ leen jëlee fii Dakar yóbbu leen kawlak di naxarlu dix secondes de téléphone soixante francs di naxarlu kaasu suukar cent vingt cinq di naxarlu benn robinet pour lu ëpp deux cent cinquante prisonniers di naxarlu ba su korité ñu tibbal leen somme yi waaw mais somme bi lañ leen toggal ba su korité loolu ba kañ ñun nag li ñu ragal ginnaaw dañoo jàpp ne doomu aadama ak ku mu ti doon dafa am àq ak yelleef dafa am ay sañ-sañ dafa am ay droit te dañ ko war a respecté même bu ñu ko condamné dañ ko war a respecté kii rey nit sax mu leen àddina bi yëpp ne diw moo rey Guy Marius Sagna ñu àtte ko daan ko preuve yépp wane ne moom sax mu nangu ne moom moo rey Guy Marius Sagna ñu tëj ko dafa am droit man ku ma rey buñ ko tëjee kaso nañ ko nañu respecté àqam ak yelleefam ñun sénégalais nañu bàyyi di wax naan non non non non ñooñu ñu bon lañu nañ leen luñ leen def baax la warul neex loolu yi loolu yaa ngi koy wax tant sa mbokk dugg fa te gis naa ñu ñàkk fayda ñoo xam ne seen mbokk mën nga fa ñuy wax loolu loolu bañ sa bopp ak bañ sa askan mënul weesu loolu nga am mbokk kaso nga naan ay kaso warul me mekki mekki warul ah ba ñuy jaay kaasu suukar cent vingt cinq ñàkk fayda ba ci lan ñuy obligé ñu naan dix secondes de téléphone soixante francs nga naan kaso warul neex ñàkk fayda mënul weesu loolu ñi am seen mbokk kaso ñu leen di toroxal nii naan noonu la baax na da ngeen ñàkk fayda da ngeen soxor ci doomu aadama du yoon ñeneen nag ñiy wax la même chose seen mbokk moo musul dugg kaso ñoom ñoo musul dugg kaso di wax naan ñoom ñoo def lu ñu leen yóbbee foofu ñu fàttaliku ne maam Limaamu Laay tëj nañ ko kaso bu gore fàttaliku ne maam Bamba tëj nañ ko nañu fàttaliku ko ne Aline Sitoé Diatta tëj nañ ko nañu fàttaliku ne Omar Blondin Diop mi nga xam ne le onze la ñuy fàttali bu mu deewee ca kaso bu Gorée tëj nañ ko nañu fàttaliku ne maam Ablaye Wade tëj nañ ko nañu fàttaliku ne Amath Dansokho tëj nañ ko nañu fàttali ko ne Landing Savané tëj nañ ko kon am na yoo xam ne war nañ ko xoolaat te fekk suñu prison yi mu ngi nii Mandela tëj nañ ko Nelson Mandela donc lii la ñu waxoon ne suñu tiitaange mooy ragal nañ ne bés dina ñëw prison yi dina tàkkaat